bi moom euh, dafa dugg rek ci cadre projet Macky bi nga xam ne mooy fexe ba terroriser askan bi yëpp ba kenn dootul ñeme wax euh, pour mun a dérouler li nga xam ne mooy mbébétam te mbébét bi du troisième mandat rek waaye mooy mandat à mooy mu toog ci réew mi ak moom ak ji ngemb ba nga xam ne kenn doon ko fu mën a déjjati lii def cee dugg fekk si yeneen yoo xam ne bi ñu jógee ci mois de mars bi nga xam ne euh, askan wi won na ko ni moom moomul réew mi mu jàpp wala mu jàngat ci jàngat yi mu war a jàngat mooy lañuy xaar ci moom mooy mu toppatoo euh, euh, coonoy askan wi mu saafaral jàngoro askan wi waaye xaaruñ ci moom mu nekk ci nappaate ak pexeel opposant yi li askan wi doon xaar ci moom mooy jox nañ ko ñaari mandat mu waroon doon gor ndax boo dëkkee ci réew réew mi mat 16 millions d' habitants 16 millions d' ñaata ñoo ci mës a mës nekk président la république ñaata ñoo ci mës nekk rek sax ministre wala directeur général yow yàlla may la nga bokk ci 16 millions yi pour ñu ku ci mën a nekk président charte réew mi ne ci ñaari mandat la mën a nekk bu mandat yi jeexee na nga dem sa yoon ñu jox la loolu ba mu jeex nga ne duma dem damay toogaat def beneen mandat askan ne loolu mënuñu koo nag nga ne dinaa ko def par looloo andi li ñu gisoon yëpp ba mu ci génnee ole mu am ci jàngat ni lañuy ñuy xaar ci moom mooy ñaari at ak genn yi ko dese na ko rafetal réew mi am jàmm am dal am tey te mu góor góor nag jublu ci liggéey ba sénégalais yi seen jàngoro wàññeeku. ndaw ñi am liggéey jigéen ñi seen coono wàññeeku liggéeykat yëpp mën a am naataange ci seen liggéey loolu ñu yaakaaru ni moom la gis waaye gis nañu safaan wala moom ci génnee njàggan bi mooy te ñi mu àndal ñëpp di ko mooy dafa jàpp ni li fi xew dañ koo bettoon rek kon na defarwaat defar gi nag mooy bu njëkk mooy naa dem recruter ay policiers gendarme yu bëri tey nee nañu 3000 la ci police 3000 la ci gendarmerie bu loolu weesoo jàpp ne ñi jiite woon police beeg gendarmerie bi li ma bëggoon ci ñoom amu ko mu jëlee leen fi daal di andi ñoo xam ne yaakaar na ni su leen nee jël leen char de combat yi dox ci kaw Sénégalais yi dinañ jël char de yi dox ci kaw Sénégalais yi. Mhm. waaye loolu doyul mu nekkoon kon il faut ma am di tubaab di wax arsenal juridique mooy il faut ma jël ay matuwaay ci yoon yoo xam ne dina ma jox doole goo xam ne ku sëqat sax mën naa la tëj te li ci gën a bëri mooy tëj la sa giiru dund. daat koy jaaral ci li ñuy wax terrorisme loolu moo mooy li am tey jii looloo na war a mottali pexe yi nga xam ne Macky Sall mu ngi koy pexe bu ci paree nag day jublu ci Sénégalais yi d'accord nan nan nan ngeen nar a demee ci xeex bu ni mel euh, une fois que ñu maanaam jëmmal euh, loi bi waa loolu duma ko wax fii parce que dafa concerner force vive de la nation bi yëpp ay stratégie la ay waxtaan la yoo xam ne mu ngi door a ñu ngi ci ñu ngi ci mais lu leer ba leer mooy mhm. Sénégal fi mu jógee ci ay conquête démocratique depuis avant indépendance ba léegi mhm. ku yaakaar ni mën nga xëy ci benn fan nga na saxaw ko da ngay nax sa bopp jàpp nañ ni dégg nañ fi léegi ne da nga jàppanteeg benn euh, député bu nekk euh, au niveau de la majorité lan moo nekkoon jafe-jafe yi ba ngeen jàppante yéen ñaar waa ma njëkk a leeral dara balaa may dugg ci loolu mooy gouvernement benn argument la am ci loi bi boo waxee dañ la naan loi bi andiwul lu bees daanaka mhm. waaw lu lu bees lu fi jara soppi foo soppi am rek mooy yokk nga wala wàññi nga nañu waxante dëgg rek loi 2016 bi loi bu ñu làqoon la sax ndax fii ñi fi nekk ci presse bi yëpp ana kan moo mën a ne moom xamoon na loi 2016 boobu. c'est vrai dañ naan nul n'est censé ignorer la loi waaye xam nañ loolu waxu picc la dañuy jaar ci suuf en catimini di voter ay loi yoo xam ne sénégalais duñu xam la ca ne may wax mbir mi ni ñaar la dafa am d'abord loi 2016 bi. loi boobu dafa di loi bu anticonstitutionnelle dañ ko war a attaquer parce que loi boo xam ne dafay jël mbirum terrorisme ne ku manifeste mu am débordement ci manifestation boobu terroriste nga euh, ku ku ku mer génn manifester ñu ne taal nañu ab bus parce que bien public la terroriste nga ba ci sax euh, ku sàcc ñu ne terroriste nga ñaar ñu jote xeex dara tuuru ci ñaar ñu ko yàlla ñu ne kii terroriste la loi boobu musiba la cim réew amul benn réew ci àdduna bu définir noonu terroriste xanaa mu doon réew yi nga xam ne ay dictature lañu waaye réew bu moderne bu démocratique amul ci àdduna donc ñu wax sénégalais yi ni loi 2016 boobu déjà moom musiba la woon te sénégalais yi xamuñu ko woon parce que député yi fi nekk sax xamuñu woon loi 2016 boobu te ñoom seen exposé des motifs bi pour loi bi visé wuñ ci loi 2016 loi 2018 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux parce que loi booy modifié da ngay fàttali loi bi ko jiitu kon loi 2016 boobu la ñu waroon wax waaye boobu dañ ko doon nëbb muy benn waaye lan lañ ci yokk mooy ci code de procédure civile dañ ci yokk dooleel procureur ak juge ku wax procureur nag xam ni kii fi nekk di sëñ Bassirou Gueye li tu li mu yor déjà ci ci ci ci doole ñu jox ko ko musiba la parce que procureur Macky la daf fi nekk pour tëjal Macky ku ku Macky bëgg ñu tëj ko waaye nga dolli ko ay pouvoir yoo xam ne jokk yokk li ñuy wax pouvoir de confiscation mooy tey mun na nangul alalu ku ko neex te li loi bi njëkkoon wax sax ni dañuy nangu lenn ci alal gi parce que li ci des dañ koy bàyyi njaboot gi nee nañ léegi may nañ ko lépp mun na koo nangu ñaareel bi ñu ne may nañ leen ay pouvoir de perquisition yoo xam ne yu yu ëpp la mooy tey mun nañu débarquer kër ku ne saa su ne sans pour autant sax niñ ko doon defee mooy dafa war a am kooku dafa war a d'accord ci loolu mu ñëw débarqué fa à tout moment daal di perquisitionné kër gi ñu fouillé kër gi yëpp wëlbati say bagage naan dañuy seet ay preuve ñetteel bi ñu ne may nañ leen ñu mun a mettre sénégalais bu nekk sur écoute écoute yi nag ñun ñëpp xam nañ ni écoute yi am na ba noppi fi ne nii nag dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a fësal nëbbatuñu mooy ku leen ku leen soob tey ñu ne diw mii njot nañ ni terroriste la daal lay mettre sur écoute looy wax ak sa soxna looy wax ak say xarit looy wax ak say sa ñëpp ñu bool leen ci mbir mi ne dañ leen di déglu nga loolu mi ngi woon déjà ci code pénal bi acte de vandalisme yi ah, mu ngi ci code pénal bi code pénal bi sanctionné na ko ba pare lan moo waral ñu bugg ko jëlee foofu yóbbu ko ci terrorisme xam nga terrorisme mooy lan mooy ku jóge fale takk ay bombom ñëw klaate ko ci kaw nit ñi parce que dafa ne nii nii lañu ñu war a doxale loolu mooy terrorisme mais revendication politique mun na jël forme bu ne mais su amee forme bu ëpp moo tax code pénal daal di prévoir des articles article 72 ba 84 article 84 ba et cetera ne lii appel à insurrection lii euh, nu mu tudd euh, euh, débordement yi am ci manifestation bu ne nag mu wax ni nii lañ ko war a doxalee lii mooy daan bi lan moo tax ñu bugg ko jëlee foofu ne dañ ko yóbbu ci terrorisme foog nga ni ku manifester étudiant bu manifester ko ne kontaanul mer génn baare yoon bi taal oto kooku terroriste la hmm. loolu mooy définition terroriste kon ñun waxuñu impunité lu am rek am na lu ci yoon wax fi mu toll nii am nay daanu ci ban besoin la Macky Sall am ba seet li nga xam ne tey mooy li gën a diis ci crime nga xam ne àdduna bi yëpp da koo ragal nga ne loolu léegi mooy terroriste ça veut dire que bu ne tey terroriste la ci génn sax ci organiser tey sa gàmm wala sa màggal ñaanuñu ko yàlla problème am fa ba nit jaxasoo nee nañ terroriste nga ndax dañu ne débordement bu am ci manifestation loolu est-ce que sénégalais war nañ ko nangu. kon mbir mi du ay euh, euh, bëgguñu waxuñu impunité ci kenn lépp lu nit def te loolu jaarul yoon am na lu ci yoon wax ba noppi. la ca bees mooy dañoo jël loolu yëpp nag ne léegi dañ koy dugal ci terrorisme mooy ku ko def yow ak sama benn Laden yéen a yem yow ak euh, nu tudd état islamique yéen a yem yow ak yow est-ce que loolu yow mën nga ko nangu. étudiant bi manifester wala homme politique bi génn def rassemblement am. kooku ak ñooñu ñoo yem. donc retrait loi bi ngeen di xaar. loi bi moo tax dama ne opposition loi bi bu fi kenn toog sax naan dangay def ay amendement ak ay parce que loolu da nga leen di fulal loi bi dañ ko war a retirer projet bu bees bi bu ñu génnee ci loolu nag dañu war a attaquer l'ancienne loi bi fi nekkoon ba pare bu 2016 dañ ko war a attaquer pour inconstitutionnalité parce que c'est loolu mooy wax ji ñun loolu la ñu ñëwoon euh, bokk ak opposition pour dolle leen